bu ma juumulee 2017 maa ngi doon wax di Badara ay tour seen kër gi nekkoon Petit Mbao maa ngi doon wax ni ndañeem ak lu bu ñu lay dugal pour nga waxtaan day mel dañu lay gaaruwaale boo amee dégg-dégg rek war na la yedd ba li ngay wax nga bàyyi ci xel ndax laata ñu ñëw jox micro bi lu plus souvent xaarixu ngeen di sikar bu mu juumul gars dañuy sikar dina la joxal yow mi war a wax nan lan laa ilaha illallahu intihal kalami day mel ñu muy junjë na man yow maayu Ibrahima war a wax bàyyil xel ne ñu ngi daggal li nga xam ne muy gën jaa kawe mbaat pour jox la nga wax ñu ngi dagg li nga xam ne lafzu saadati la ñu ngi dagg la nga xam ne kaddu mucc la kaddu ragal yàlla la kaddu tawxiid la kon bu fekkee dagg nañu ko di la ko jox pour yow nga wax xoolal lan ngay wax lu toll ni la ilaha illallah ak ni mu bëree la mu àndal seen ngëneel ñu war kaa dagg jotaay bi yëpp noppi di la déglu ngay wax looy wax c'est sûr et certain que ni mënu wax moom mu yem ak baat bi waaye nag war nga góorgóorlu ba nit ñi dégg say kàddu la nga xam ne dina tax ñu gën a fonk baat boobu xam ne mooy inti la moo ni li Cheikh Mbacke di wax wax kat warul perdre temps na jamono bi nga xam c'est la ñu toll nit ñi leen di yóbbu dafa bëri chaque jour ma wax ne nak gis nga bu ñu nekkul won nit nekk insaan nekk créateur ba nga xam day faté wallahi du ñu moy borom bi boo xalaatee yàlla xam ki mu doon xam li mu lamboo yëpp. nga xam moom yàlla nga xam ko dëgg dëgg dëgg doo ko sañ a kon da ngay comprendre ne en quelque sorte li tax ñu sañ a mooy yàlla de mel ne dañu ko xamul xam nga léeg-léeg yenn borom xam-xam yi si seen i loolu moo leen yóbbuwoon ñu dem banaan sax bàkkaar bu mag ak bu ndaw amul yépp ay bàkkaar yu mag lañu ndax ñoom gisatuñu woon bàkkaar bi mais li ñuy gis mooy ki ñuy mooy kan la ku tul ne yàlla yu lépp yor sa lépp mën lépp yor ay ngañ yu ne yoo xam ne kenn mënu kaa lim kooku digal la defoo mu tere la nga bàyyi ñoom loolu di leen doon yéem moo tax demoon nañu ba amaat amatu ñaat daan ñaat la sax si bàkkaar bu mag ak bu ndaw donte na nag yonent taalisam saxal naka pour woo expliquer rek dayo bu ñu amoon moo tax encore une fois ñu jëlaat suñu yitte ñu jox ko yàlla suuxat suñu diggante ak suñu borom ku ko deful rek jàppal ne yaa ngi si ak neen question yi nag bëgg naa kenn ku si nekk suñu laaj boppam oustaz Sakhir Dane ni ngeen déglu yéen mbooleem ku ñuy woowee ak soppeem si yàlla mi tax ñuy jaamu ngir moo di buuram ba mu ne borom jaam ñi am na ay melo yoo xam ne képp ko jot tey jaamu war na nga xam leen boole ko xam yónneen tàmba mu dem ba si digg bi di la xibaaraat nan lan meloy yàlla yi subhaanahu ak meloy yonent alayhi salaam xam leen dinay war sa muslim ba kon yow jullit bi fi ngay tàmbalee mooy jéemal xam sa borom ndax boo ko xamul doo xam nan nga war a dundee ak moom loo xamul doo ko fonk doo ko jot cër bi mu yàllool moo tax ñuy tàmbali nan lan jéemal xam yàlla jéem ko xam borom xam-xam yi nan lan boo xam-xam bi gën a kawe mooy xam-xam boobu xam-xam bi ngay jéem a gëstu kan mooy yàlla ci ay melam ak ay turam dégg nga yàlla duñ ko wax ci téeréem ba yàlla ñeen na ko tur yu rafet ya kon di leen ko invoqué à travers tur yooyu di leen ko ci woo kon waree fu képp kuy jullit la nga jéem a gëstu sa borom bi nga xam ne moom nga jàng mooy kan ci ay turam ak ay melam mu bëgg leen laaj ne kii nga xam ne man kay waaye la ku nekk ni ko imaginer tey bu doon moom yaa dundee ak moom noonu situation nan lay deme maa Ibra nu imaginer tey yàlla doonante nga xam ne mindset bi muy dundee maanaam état d'esprit bi muy dundee mooy li ñu doon wax ay at ci ginnaaw coow li bi mu fi riiree bi am coow politiquement. dama doon dégg ñuy wax benn baat gars yi naan l'état doit rester fort def lañ doon wax pour wane ne impunité kenn waru ko kenn waru ko pratiquer fii maanaam ku def loo xam te jaar yoon dañ la war a punir nekkul état bi dafa war a jël ay responsabilité si ñi nga xam ne respecté wu ñu yoon sama xel nag voyage yi dem ci borom bi mu ne tey kenn ku si nekk si ñun na laaj yàlla na laaj boppam bu yàlla dun dundee ak ma setu l'état doit rester fort que wane ne man yàlla itam dama war a rester fort maanaam dama war a war jàmmi ne leen man maay seen borom suñu situation lan lay doon bu yàlla xëyoon tey rek war ñoo wan nañu moom mooy suñu borom mooy buur bi mooy dogal lu ko ne suñu vie nan lay demee est-ce que cër bi mu yelloo jox nañ ko est-ce que mu ñu digal def nañ ko est-ce que ñu teere ñu ngi kay def ñu ngi koy bàyyi. Si kon yalla bu fekkon dafa bëgg imposer bopam war ñu ne mooy suñu ont mooy suñu borom suñu vie nan lay imaginer leen ko bu xuyon tay doon ki nga ne day ak ñun lu way def mu fay suñu vie lan lay doon bu boba suñu dund nan lay imaginer leen bu yalla doon ak ñun manam li tubam na méritocratie li nga le imagine leen yàlla bu dul woon ab yërëmaa koon ñun suñu vie nan lay demee yàlla bu dul woon ku dul jéggali doon koy jëllale suñu vie nan lay demee tey yàlla bu nekkuloon ko patient jëm si ñun suñu vie nan lay demee ay gars yàlla bu nekkuloon ko bëri sutura tey suñu vie nan lay demee imagine leen yàlla waroon xëy tey rek waxuma suba waxuma ginnaaw suba fii ñu toog rek kenn ku sa nekk léegi lépp lu nga xam ne mu ngi sa téléphone portable yàlla war kaa wuñ na sa kanamam mbooloo mi seen vie nu muy demee. bu ngeen photo seen biir nekk li ngeen di wax ak li ngeen di jëf bu ko yàlla waroon génn projeté ko fii ñëpp di ko gis suñu fii nan lay demee lan la borom xam-xam yi waxoon. nee na suñu bàkkaar yi bu fekkoon dafa am xet maanaam baasaa boo defee bàkkaar yàlla boole la xet goy wane ne yow am nga bàkkaar mu ne kenn du sañ a génn këram Sëriñ Mansour laajoon nañ ne ñu ñaata la yàlla yor suñu suñuy audio ak suñu vidéo bu ko yàlla génnoon tey suñu dund fan la jëm kon en résumé encore une fois imaginez leen tey yàlla bu doonul woon ku bëri sutura suñu vie nan lay demee tey waaye borom xam-xam dañ na la importance loolu yëpp mooy la ma waxoon mooy ginnaaw ba yàlla dafa doon ko nga xam ne mënuñu ko fay bu yàlla doonoon kon fayantoo ak ñun xam ngeen du duñu fi dees te wax na ko ci téeréem ba bu fekkoon dama leen topp seen jëf mu ne kenn du ma ko bàyyi tey ci kaw suuf yéen ñëpp ngeen ni ngeen àddina ndax ñu mën a tooñ leen bu fekkoon yàlla ku ko dugal téeréem mu da jàmmarloo ak yow kenn du fi des kenn ak dundam du neex kon bu fekkee ñu ngi fi tey di dund am santé ndax ku wér moo la wéral inna allah anzala daa wa dawaa wa jaal li kulli daa in dawaan fa tadaawoo wala tadaawoo bi xaraamin yónnee bu tedd bi alayhi salaam moo ko jàngal ne na xam ne yàlla moo wàcc ak feebar moo moo wàcc jàngoro moo wàcc saafara ba mu ne bépp feebar moom suñu borom ba na naka ab saafara mu ne nag kon bu boobaa bu ngeen feebaree

yàlla aj xam na la te ñun chaque jour dañ naan mieux vaut prévenir que guérir yàlla pourtant avant maa ibra di dund xamoon na ne moom yàlla bu ko bindee maa ibra bu ñëwee si kaw suuf moo fii lor mu fii tabax ay bërëb yi nga xam ne bërëbu mooyukaay yàlla la bërëbu soirée bërëbu concert ay hôtel nangam ak pour pourtant xamoon na ko mais mu bàyyi ko xaalis bi ngay jël dëkk investir si ay caaxaan ku la ko wërsëgal ku dul li gars yi dul bàyyi xel bépp ak mooy yàlla booy def yàlla sa ndimbalam nga baase wu pour mën nga def waykat bii woy si sabar yi voix ku ko yor kan moo ko yor léeg-léeg nga gis ku organiser par exemple benn programme bu mag moo xam ne yàlla bëggu ko soirée par exemple moo xam musique dafay am wala leneen xoolal ba nga appee la la yàlla mënoon toog mu bàyyi bàyyi la nga wér bàyyi la nit ñi wuy si la mu waxaat ba sa jour ba mënoon la teg ab sibbur rek programme bi yàqu mu bàyyi la nga dem mënoon la def sa baat dee dootu programme bi annulé wu mu bàyyi la mu bàyyi la ba nga réussir ñëwaat toog kon da gis ne lépp lu ñuy def rek ndimbalum yàlla la ñu àndal bu mën ko def kon yàlla moom encore une fois waruñu ko tëbbal suñu benn affaire lépp lu ñëw rek dañ ko sa war a sóoraale moom yàlla te xam ne mbaaxam ndimbalam patience am mën a suturaalam moo tax kenn ku si nekk suñu ñu mën laa sagoo mën laa ndamoo li si am solo kon mooy li borom xam-xam yi wax importance su nga xam kan mooy yàlla mooy ngay jéem a dundee ni muy dundee ak yow ak ay jaamam li yàlla di dundee ak yow nga jéem kaa dundee ak ay jaamam ndax mënuñu ko fay xaw ma ndax man xaw ma ndax yéen dina leen dal mais man daf ma doon dal yàlla parfois dina la defal teraanga ba nga mujjee ruus dama naan dem ba damay juum sax nan kaay yàlla yàlla na la yàlla fay je mu me rendais même pas compte que ne moom ci boppam laa ñaan pour ma fay boppam te soxlaaw ko ku doylu si boppam la soxlaawul daraay kenn léegi kooku bu fekkee mu may defal ay teraanga ma bëgg a góoree jëm ci moom nan laay def ki lay defal lu ne bu bëri ëlbate ko naan soxlaaw ma daa dara nan nga mën a def mooy li ma doon wax nga ko lépp lu muy comporté ak yow nga koy comporté ak ay jaamam yeneen bu tedda bi nee bu fekkee du yërëmaate mu ne kenn du la yërëm mu ne yërëmal ñu nekk si kaw suuf ki nekk si kaw asamaan si yërëm la yërëmal da lay doxal ak yow te yow mënoo ko doxal ak moom ndax moom ku dellu sa boppam la mu ne la transféré ko si ñi nga xam ne ay jaamam lañu kon dañu war dund ak yërmande moom su suñuy diggante yàlla ku lewet la yàlla ko patient la jëm ci yaw mu ngi lay junjee ne la comme te mënoo maa fay fay ma ko si sama jaam yi te defe na am na benn xalis bu koy wax bi yàlla naan feebar naa te seet si wooma tàllal naa la loxo joxoo ma loolu lu mu si mu ñëw di la tàllal loxo jàppal na ay loxom yooyu du lay loxom loxo yàlla la loxo yàlla la ci feebar nga war ko seeti du yàlla moo feebar tëdd de mais ab jaamam la demal nga seeti ji ko kon bu fekkee bëgg nga fay yàlla mën nga ko fay à travers ay jaamam li muy dund ak yow nga koy dund ak ñoom rawatina nag surtout jamono bi ñu toll muy sutura bi nga xam ne yàlla mu ngi koy dund ak ñun ani suñu sutura ani suñu sutura tey kin amul sutura lu xam wax ka xam ngeen ne yonent nee na alayhi salaatu salaam doy na si nit ñu mën kaa ak fenkat lépp lu mu xam te muy dëgg sax mu dem di ko nettali sàkkamtuma la lu lu la wóorul nag lu la ani sutura kan moo fi am sutura fi ñun yàkkamte nañu dëgg lu bon si nit ki ba dem di ko nettali ji te li gën a ci yéeme mooy li yenn li Yàlla wax ci téeréem ba mu ne bu fekkee da ngeen di déglu ay kàddu à chaque fois bu ngeen déglu jël leen da sa gën a rafet leneen la ngeen bàyyi ko fa ñun nag ñu nekk yàlla contraire bi sax la ñuy def imam Malik day def waxtaanu une heure de temps maa ibra xëy rek sengale ko ne dafa bëgg génn ay nan lay def day dem ji vidéo une heure de temps la muy seetaan ba neuf minutes lépp di njariñ mu bàyyi ko fa imam Malik de benn c' c'est une seconde mu extrait ko dal di ko publier dégg leen diw li mu ñu ne la xoolal la ca gën a rafet nga partagé ko nga ne déedéet man li may cher mooy li nga xam ne mooy li gën a bon seet leen di am nay ustaas yuy waaraate nit ñi un deux trois ñu ne dañ leen di vaar mais bi mu koy vaar dafa dem seetaan ji ay vidéo am intégralité yi ngay déglu mooy wax njariñ nga naan kan soxlaaw ma njariñ yi ngay déglu mooy wax njariñ nga naan kan soxlaaw ma njariñ yi nga xaar mu jum benn jum nga ne lii laa doon wër xoolal lool te yàlla na nañu woon ne que muy wax xool li li gën rafet ngeen utiliser waaye déedéet dañ nekkaan déedéet ñun li gën a ñaaw la ñu xool pour partager ko ak nit ñi yéen genre nit lañu bu ñu bëggee encore une fois reconnaissant suñu diggante ak suñu borom dañu xool yàlla ñu muy dundee ak ñun ñu koy dundee ak ay jaamam ñu am yërmande jëm si nit ñi ñu am ko ñu am ak sutura jëm si nit ñi am patience surtout jëm si nit ñi parfois da nga koy gis jaay doole gi da nga koy gis si société yëpp dañuy gis sax nit ki yor entreprise am employé lu leen neex lay dundee ak ñoom parce que moo leen yilif laajal sa bopp yàlla ba ñu yilif ñoom ñëpp bu doon doxee ak moom est-ce que da nga fa des reconnaissance bi mooy li yàlla dundee ak yow dundee ko ak ñoom dem nañ ci usine yi ñëpp xam nañ ko ki leen chef dalay wan ne la moom moo la chefé quoi

ay jaam li tax ma koy wax mooy jamono bi da ngay xool nit ñi da seetlu ne ñu ngi daj ay coono yu ne ngir paraître ñu ngi daj ay coono yu ne ngir suñu apparence ñu ngi par ñu ngi góor góorgóorlu ci lu ne ngir mën a jag si kanamu nit ñi ñu ngi jéem lu ne ngir mën a am cofee lépp nit ñi nit ñi soppuñu seeni diw ñaata lañ la ñuy jaar rawatina jigéen ñi neewuma dafa bon de déedéet dugguma foofu loolu moom bàyyi naa ko borom xam-xam yi ñoom ñooy àtte li dagan ak li ñoom imam Malik mun dugguma foofu mais ñaata ngeen di dépenser pour paraître bien seeni diw ñaata lay jaar seeni shampoing ñaata lay jaar da gis sax ñu dem ba crème mais sax xeebuñu ko ñun góor ñi dañ koy gis. ku fi utal ay loxoom ay crème pour nooyal ay loxoom ngay toppatoo sa jëmm saabu bu cher bu ne nga jënd parfum bu cher bu ne nga jënd yëre yu cher yu ne nga jënd dàll yu cher yu nekk nga jënd foo déggee ne nit mën naa wat sax nga dem fa donte deux mille wala plus de deux mille lañ la fayam jaral na la ko pour paraître bien waaye nag dañuy wax ne nit ki dangay ngay doxal ak mandute mandul mandute gi fan la jëm si yow si sa bopp ndax da am ñaari composé nit bu deewee ndax day disparaître nit ki bu génnee àddina day naaw day njëkk sax doo leen ko gisat ngeen xam ne dee na lan ngeen di gis bu nit ki deewee lan ngeen di gis ci moom lépp ngi fi de bu si si si zaahir lépp ngi fi. waaye am na lu nekkoon ci biir di ko alimenté loolu la yàlla dindi moo tax koor bi amatul solo kon nga xaw xam ne kon décomposé nañu suñu ruux ak suñu koor gars yi koor bi toppatoo leen ko c'est normal waaye nag bu leen jeng na ngeen mandu na ngeen am lu leen war ci koor bi ngeen di ko sanga di ko di ko ko solal di ko parfum Si vous yi ngeen ak shampoing di ko diw di tout ça pour paraître bien c'est bien c'est pas mal waaye nak bul jeng mandul bul jot dem ji rox kon ni ngay ba paraître bien si kanamu nit ni non nga pour paraître bien c'est sa diggante ak sa borom ak nga nekk fa ni ngay séduire nit ñi pour ñu bëgg la noonu nga war a séduire yàlla pour mu bëgg la noonu nga war a séduire ñi ci kaw ngir ñu bëgg la gis ngeen Ibn Xayim li mu wax bu ngeen génnee àddina mu ne seen ruux gi dañu koy jël bi ñu leen di waajal mu ne jël nañu ruux gu yóbbu ci kaw bu yéegee ba premier asamaan ñu xool bu fekkee bu borom ruux gu tilim la ba mel ni maa Ibra ñu ne borom ruux goo xam ne bu tilim la ànd ak xet gu bon gi ruux kan la ñu ne ko ruux diw la doomi diw ñu ne tëj nañu asamaan yi doo jàll foofu la ñuy régler say mbir bu ñu paree du ñu la wàcce dañu lay sànni bu fekkee nag borom ruux gu set gi la asamaan bu mu yéeg gars yi naa borom ruux gu sell gi kan la ànd ak xet gu nekk borom ruux gi kan la kon buy gis ne sellal sa ruux dafa am solo te mooy séduire ñi ci kaw ndax yàlla xoolul lii li muy xool lan la li nekk ci biir xol bi yonent wax na ko am na lu mu nekk si yéen ba nga xam ne bu baaxee lépp baax bu mu ne lépp bon ala waxiyal xalb loolu mooy ab xol kon bu ngeen toppatoo seen yaram yi bu leen fàtte seen seen ruux jox leen que li mu yeyoo ñu ko dundal moom ruux googu nit ñi dundalee suñu yaram yi boo nekkul nag si digg bi dangay jenn te ñaari côté yëpp dañ ne la bul jeng dégg nga wala tan sa nasiibaka mina dunya léeg-léeg nga gis ku ko def. ku ne moom fase na àddina mu la neexee waaye ñun li ñu yàlla digal mooy ñu nekk ci digg bi gis ngeen sanga bi alayhi salaam parfois bu fekkee amul dégg-dégg da nga yaakaar dana la fasal àddina bii nii dégg-dégg la laaj de li la koy woon mooy bu fekkoon dana la toogal bul liggéey ji dina la laaj asaka foo koy jëlee asaka foo muy jóge si loolu liggéey kon moom naa la demul wuti ji kon bu nan lan nga fase ban fa àddina la lay wax nga fase ko àddina bu teeyul bi àddina bi nga xam ne dañ ñu ko tere adduna bu araam si ñun bi kon da nga war a góorgóorlu ba nekk si juste milieu bi li la war si sa ruux nga toppatoo ko li la war sa yaram nga toppatoo ko parfois sax am koy dox si diine te tu comprendre loolu ñoom yaakaar nañu dal koy dund si diine ab walaakaane nga war a doon déedéet yéen jàngal nañu ko démb yéen yàlla ko taarul te dafa bëgg lu rafet dafa rafet bëgg lu rafet moom suñu borom ba dégg ngeen si ji yeneen tey sax naan fu nekk sax di daan doxantoo peñe pour toppatoo boppam ñun nag ku ko def ñu ne la jaay taan la déedéet équilibre la ñaar yëpp da ko war a da ko war a gérer loolu la benn borom xam-xam doon wax professeur Souleymane Bachir Diagne doon ñu ko jàngal ne kooku dafa xool yonent bi nekk li ma gën a yéem si yonent bi mooy riñaan gi mu riñaan dem ba si yàlla gisee ak moom jokkoo ak moom war a mën a ñëwaat ci addina bi di composé waat ak nit ñi ma gaa ñoom yaakaar nañ ne bu ñu fanaawee rek waruñoo wàcce waat moom nan la mën a def ba yegg foofu et tout ça ñëwaat di composé waat ak nit ñi nit mi foofu la ne am équilibre kon nañu nañu màndu ñu diggante ak suñu suñu ruux ak sa ale mooy suñu corps bu ñu ko defulee amaana ñu dugg si la xam ne daf ñuy lor kon boo ma bëggee dégg koor bii di sa yaram na mel ni lu ñu la dénk borom dénkaane li da nga war a góor góorgóorlu à chaque fois laaj ka lan nga bëgg ci li ma dénk ma la koy defal bu ko defee ëllëg booy audit taxawee ñu mën laa fay waaye boo sa deful nag moom la mu bëgg ay audit bu taxawee rek ëllëg safaan ba nga jëm te baaxul li tax ma koy wax mooy maa da koy leer ne lii muy def nii dafa xaraam mais bakkanam moo koy laaj mu topp ko moomoo amagoo pour bégal sa bopp ci àddina fii li ñu war a def mooy bégal yàlla am na benn situation bu yàgg bu ko doon wax naan yàlla dere dama bëgg ngeen bëgg bu ngeen bàyyee li ngeen bëgg topp li ma bëgg mu ëlbate ko sax jox leen li ngeen bëgg waaye bu fekkee ne da ngeen bàyyi li ma bëgg topp li ngeen bëgg ma xañ leen li nga xam ne moom ngeen bëgg yéen kon topp ko day tax tax ëllëg la la ëlbatiku toppale yow kon boo bëggee féex encore une fois toppal yàlla muy jihaadu nafs xeex ak sa bakken nga nekk jigéen sa bakken di la laaj yooyu ngay gis say morom teg ay cheveux mu neex la loolu mu neex la nee na nga yaraat ko nekk saa yi nag ah bëgg naa ko de mais borom sama borom man bëggul lii te ay loraangee ma say fekk may gis sama morom xees te man ma am bu ñuul ma bëgg xees comme moom ñu ne ma solution bu ngi nii dépigmentation maanaam xeesal mu ngi nii mu bëgg ko loolu bëgg paraître mel ni ku xees mais nag da ngay fàttaliku ne jàmm nga moom moo sa bopp borom koor bii dana la loolu bëgguma ko si nga sàmmal ko ko moomoo dañ la dénk dañ la dénk moomoo yow ko du góor gi tam kazaalika gis nga gars yi di woto dabala nga ne boo ko wotoo mu rafet d'accord mais fàttalikul ne moom moo sa bopp te ki la moom dafa am lu mu tënk ci yow na bu tedd bi jotal la ko ne leen bu leen di wot wat wet bàyyi wet sàmmunte nag lépp lu xam ne diggal nañ la nga jéem a sàmmunte ak loolu mu jixaat du nafs bu ñu ko deful lekk nag c'est partenaire la ñu jëm te wax naa bi passé ne yenn yi boo koy dund wallaahi asi ñi gars yi di xalaat ni amu si léeg-léeg mu gis ko si jigéen ñi yaakaar ne gis ko xam ne day xool ko nan ko nan nga mën a muuroo si tàngaay bi. Mm-hmm. te wallaahi lazim ki muuru boo ko laajoon wallaahi du yëg tàngaay bi le plus souvent boo ndax yàlla dafa am yu mu lay roof booy def ay ndig ay digleem ba yenn yi gars yi yaakaar ne moom nga yëg say suuf la doo ko yëg wallaahi doo sax bàyyi xel. gars yi ñooy bàyyi xel ay tàngaay ay seddaay nanga waaye doo ko yëg mm-hmm. waaye yow mi nga xam ne. yaa ko nag bàyyi fa digle bi yàlla solo lu yem fii teewul da nga yëg tàngaay bi ba tey kële nag bu lay wax doo mën a comprendre li mu da nga yaakaar ni sa ay théorie la ne yaakaar ni sa ay théorie la kon encore une fois nañ jël mbir yi jébbal ko yàlla mooy nag la la Cheikh Serigne Cheikh Mbacke wax te saa su ne ñu koy wayte duñ ci bàyyi xel ñun ñoo naan bëf naa di sàkku si buur mu laabal sa xol te sellal sa jëf yi rab bi nga xool ko moom yàlla ne ko saa xol bi laa am nga suusi jàkkaarloog yàlla nekkan bukumu ku ya yow yaa ko wax de moom la toog nee wala waxal man nangam yaa jël engagement di ko wax boo demee nag bu am nga ñeneen ñuy bëgg bu di way noppil noppil yaa ngi dugal sa bopp ndax lépp loo wax rek ëllëg di nga ko waxaat te yaa jàkkaarloog yàlla nekk saa xol bi laa am buggul ku dul yow yàlla nga ne ko keneen ku dul yow da bañ jël xol ne bëgg leneen lu safaanu ak comment nan kam saa tànk yaa ngi du dem fudul yow ndëpp mi tëgg nga dem yaa wor te yàlla wax loolu ko yaa jël engagement bi kon encore une fois bu ñuy waxati li ñuy bàyyi xel li ñuy wax muy la ma waxoon tuur kër dem ma rek jàkkaarloo yi naan kan naan kan yàlla wasxol am na lisi jaa bihi muhammadu xaqun wa anna aljannat xaqun wa anna naar xaqun naan kan yàlla gëm naa ne safara am na yàkka wax de yéen ko gëm naa ko ba pare nag nga mën a ëlbatu ko def leen comment ngeen baal ma ci kàddu yi yàlla na yàlla jéggal ñu waaxee dox waa naan alhamdulilah rabbi